Daba Mbengue président action pour les droits humains et l'amitié Adama Mbengue ñu ngi lay euh, ziar bu baax di la gërëm di la sant ci ni nga nangoo bàyyi sa yitte itam ñu sekk waxtaan bi ci invité matinal sëñ bi Dramé yéen la ñuy fay. Mhm. di leen euh, remercier di am kontaan te participer émission bu nga xamante ne suñu kër lañ koy defee la important lu ñuy waxtaanee bokk na la ca njëkk mooy requête bi nga xam ni waa parti démocratique sénégalais daan nañ koy dugal ni ki démb ak seen i ay alliés fa li nga xam ne moom moo di ca cour suprême ngir rek mën a arrêté li nga xam ni moo jëm ci processus électoral bi li ni mel nag antuwul kon mel na ni élection bi moom dafay woy ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars lañu war a amal élection présidentielle yi lan moo ci sa xalaat. xalaat ci commentaire ci wàllu yu ni mel. waaw yàggoon nañ si woon wax euh, je pense que <clears throat> ñu yàgg si gisoon na ne suñu communiqué bu mujj bi rek nga xamante ne moo ñu daté wu dimanche bii ñu weesu. ñooy si doon wax euh, ni euh, ñu dem si ay élection campagne électorale yu nga xamante ni yu apaisé lay doon maanaam yu nga xamante ni si jàmm lañ koy defee si biir communiqué boobu noonu ñooñu doon ñëw si euh, lu nga xamante ne moom mooy processus électoral bi ba si euh, lu nga xamante ne moom mooy euh, waa PDS ak ak seen groupe bi nga xamante ne dañoo buggoon ñëw saisir lii di conseil bi maanaam cour suprême bu nga xamante ne bëggoon nañ ko saisir. Mhm. ba foofu noonu rek dañoo anticiper wax leen ni ah. Euh, même ko defee du mujjee fenn parce que am na lu nga xamante ni dafa nekk ay ay tëralin wala ay loi yi nga xamante ni euh, moom mooy régir lii di di élection yi d'abord euh, boo ñëwee xool décret bu nga xamante ni mooy deux mille vingt quatre euh, six cent quatre vingt dix bu nga xamante ni moo fixé élection présidentielle yi def ko pour datu dimanche vingt quatre mars deux mille vingt quatre ñu ñëwaat xoolaat décret bu si topp muy deux mille vingt quatre six cent quatre vingt onze bu nga xamante ni moom moo convoqué corps électoral bi li si topp nekkaat décret deux mille vingt quatre sept cent quatre bu nga xamante ni moom moo fixé période élection bi nga xamante ni ñooy la naan le vingt quatre mars la ñu war a élire euh, lii nii di euh, président fii nii di Sénégal lu weesu loolu le deux mars moom mooy foofu la campagne bi di jeex nga xamante ne dañuy noppaliku benn fan rek après ñu dem ci élection lu weesu loolu euh, ñu doon féliciter lii di conseil constitutionnel nga xamante ni boo ñu jugee si euh, décision bu nga xamante ni def nañ ko muy numéro un C deux mille vingt quatre euh, numéro six E deux mille vingt quatre. Mhm. loolu nag pour ñëw si question bu nga laaj. de plus de manière plus euh, concrète. Mhm. dañuy wax ni que boo ñu déposé feneen dafa am benn référé bu nga xamante ni dañoo waxoon ni référé boobu noonu mënul jàll si ñett point yu nga xamante ni point yooyu noonu. benn rek boo ko amee rek jaru sax muy muy toppalante wala ñuy ñu koy boole. Mhm. mais si ñetti région rek benn bi moom mooy euh, lu ñu woowee euh, défaut d'intérêt à agir d'intérêt et de qualité à agir maanaam euh, li nii di. candidat yu nga xamante ne ñoom la ñu retenir muy fukk ak juróom ñeent yu nga xamante ñoom ñooy candidat yi ñoom rek lañu may tey jii nii ñu ñëw saisir Euh, cours bu nga xamante ni moom mooy suñu cours bi wala ñu ñëw saisir leen ne ah xëy na seen euh, élection yi niñ ko jàllale du yoon wala léeg-léeg lii maanaam ñu mën leen saisir pour mën a ñëw euh, poser wu si benn problème bu nga xamante ni am na si processus bi lu weesu juróom-ñeent yooyu noonu keneen mënul ñëw naan da ngay saisir cours bi beneen bi nekk lan moom mooy cours bi tamit mus na régler lu nga xamante ne moom mooy cas yii nii booy leen fàttaliku amoon na benn référend référendum bu nga xamante ni euh, kii laajte mooy na ko euh, un des des acteurs politiques muy Ousmane Sonko. Mm-hmm. donc beneen point bi nekkaat cour bi euh, mënul ñëw jàll ci kaw Euh, plénitude juridiction bu nga xamante ni conseil constitutionnel am na ko en matière électorale. Mmh. ñëpp xam nañ ne que conseil constitutionnel en matière électorale ñoom ñoo si am plénitude juri juridiction mais lu weesu ñoom amul ñeneen ñu nga xamante ni war nañ ko mën a am loolu mooy problème de recevabilité bi. muy ñett yu nga xamante ne. Mmh. wax euh, am na si. beneen bi nag nekk lenn gis nga tey jii nii. Mmh lii di protocole additionnel CEDEAO hmm. Sénégal dafa bokk ci bànqaas boobu noonu signé ak ratifié euh, lu nga xamante ne moom mooy charte te loolu daf ñu tënk bien vrai que am na ñoo xamante dañ naan ah amoon na ay période yu nga xamante ne boo ñu waxee parrainage euh, CEDEAO wax na lii mais dañoo ne nous sommes souverains mais am na yoo xamante ne peut-être souveraineté boobu noonu fii nii lañ koy waxee mais am na yenn bànqaas yoo xam bu ñu fa toogee du ñu wax loolu Mm-hmm. donc ce qui veut dire que ñun on est obligé yenn yi tamit si ñëw di si bàyyi xel protocole boobu daf la naan euh, à à à moins de six mois si élection war a ñëw maanaam mm-hmm. juróom benn weer si élection euh, foofu noonu mënoo ñëw changer les règles du jeu am na nag ay exception mais si fi nii ñu ñëw nii mënoo ñëw ñëw changer règle du jeu nii nii rek même bu fekkoon ni tey dañoo ñëw dissoudre conseil constitutionnel ñu dissoudre ko sax règle jeu bi mënatuñ ko changé am na sax ñu doon wax ni que ah ñooñu ñëw saisir assemblée dañu nar a dissoudre rek foofu noonu nous sommes catégoriques ah yàgg nañ ko wax tey bu ñu doon dissoudre sax conseil constitutionnel euh, buñ ko dissoudre même buñ fi tegoon beneen bànqaas. Mhm. bànqaas boobu noonu lu mu mën a def moom mooy continuer élection yi. loolu moom mooy mën a am. moo tax mhm. dès le début. Mhm. on a dit Euh, nekkul àpp bi xëy na am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne moo gën a urgent mhm. yooyu la ñu war a xool te yooyu nag moom mooy lan ñu dem vers des élections apaisées élections yoo xamante ni euh, saafonte lay doon euh, am ay débat yu nga xamante ni di des programmatique et cetera ñu xool problème yu nga xamante ne moom moo am lalu ci Sénégal ñu xool euh, candidat bu nekk nan lay ñëwee apporter waxtaan ni ah ñun bu ñu toogee lii la ñu apporter. Hmm. lii la ñuy andi comme solution solution yi nag nii lañ koy defee ak ñeeg ñeeg je pense que loolu moo gën a urgent ñu moytu tamit violence verbale bi. Hmm. parce que gis nañ ni que boo mu démarré ba léegi nii gis nañ ni que dina am ay yenn. problème yu nga xamante ne jotoon na am. si hmm. premier jour jàpp deuxième jour bi. Hmm. donc yooyu noonu daal euh, du honorer Sénégal nañu dem si ay élections yu apaisées yoo xamante ni daal euh, chaque fois Sénégal dafay wane maturité démo euh, maturité par rapport ak sous région bi nga xamante chaque fois bu ñu wax ni que ah dafay nara a basculer yooyu noonu ñu gis ni que la population dina génn de manière mature. ñëw voté. c'est important léegi voté euh, ñu jaar si yeneen. léegi ci Adama Mbengue ci wàll wi ni mel est-ce que euh, gis nañ ni fan yi yëpp yenn décision yi nga xam ni itam ñu ngi koy jël ci di jëm ci wàllum justice bi est-ce que euh, si c'est pas trop dire nekkuñu di réconcilier justice bi ak ñi nga xam ni itam moo di askanu Sénégal. waaw xam nga justice bon ñun yàgg nañ ko wax si suñu ay communiqué. gis nañ ni que sénégalais yi de manière générale euh, ñu si bëri demoon nañ sax ba euh, wóolootuñu bu nekkee moo bi dañ koy wax si jaar si digg bi wóolootuñu suñ justice donc euh, am na ay liggéey yu bëri yoo xamante ni yuy xaar gouvernement bu ñu wala ku ñu war a fal ak gouvernement am am na liggéey bu am solo boo xamante ni war na ko liggéey nekkul rek justice de manière générale c'est l'administration c'est le pouvoir de manière général parce que yàgg nañ fi ñëw wax lu nga xamante ne mooy bavure yi yàgg nañ fi wax yeneen ak yeneen problème yoo xamante ni ñun ñi nekk ci di liggéey pour àq ak yelleefu doomu aadama. Mhm. chaque fois nga gis ñu ñuy bind di alerter di def ay rapport di yónnee yooyu noonu yëpp donc loolu rek dafay wane ni que nekkul rek justice bi justice bi am na ci pàcc bu am solo mais lu weelu justice bi am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay chantier la yoo xamante ni war na tax tey jii nii képp ku ñu war a fal ah duñ la fal ñu nekkaat éternel recommencement dafa war a nekk loo xamante ni bon en avant la war a doon te Sénégal daf ko yitewoo daf ko soxla. Mm-hmm. beneen bi maa ngi la ko sànq ci programme yi ku ci nekk yaa ngi teg ne réforme dañ ko war a indi ay coppite ñi ne conseil de conseil de justice bi ñoom dootuñu siégé ci le au conseil de la magistrature dootuñu si bokkati ministère de la justice war fa bokk ainsi de suite programme yi candidat yi ku nekk yaa ngi yëkkati kàddu est-ce que tey jàppaloo ni tey réforme bi tey lu war la. waaw xam nga réforme yàgg nañ ko wax. du léegi rek chaque fois da ngay gis ni que dañuy bind loo xamante ni boo xoolee rek euh, dañ la naan constitution bu Sénégal bu ma jëlee exemple rek bu bu 1963. bu nga hmm. xamante ni moo ñu consacré euh, lu ñu naan principe de l' indépendance du pouvoir judiciaire mais lu ñu constaté ñun lu ñu gis moom mooy leen en réalité euh, loolu amul da gis ni que pouvoir exécutif bi. moom mooy dominer le conseil supérieur de la magistrature nga gis ni que le chef de l'État wala euh, le chef du parquet euh, moom mooy am benn double point de vue fonctionnel ak euh, statutaire donc yooyu noonu yëpp nekk benn amaana lu nga xamante ni daal euh, réformer encore une fois justice bi war na am lu nga xamante ni lu bëri luñ ci war a luñ ci war a def te yooyu noonu gis ñu amoon na bu yàgg boobu euh, le président rencontre bu mu defoon ba doon wax ni que war nañ moderniser euh, justice bi war na ñu lutter contre la corruption war ñu lutter contre lii nii di promotion ñu war a mettre en avant promotion bonne gouvernance teg fi ay ay ay ay kii yoo nga xamante ne ay points yoo xamante ne wala ay ay ay déclaration yi nga xamante ne defoon na ko en deux mille euh, bu ñu fàttaliku vingt et un mars deux mille quatorze mm-hmm. boobu mu signé wax Euh, waxoon ni que bon am na ay coppite yu bëri am am am solo yoo xamante ne dinañ ko def. Mhm. ba mu ñëwee wax tamit li nii di convention bu Mérida bu nga xamante ne bu Maputo la bu 2003 euh, ak yeneen ak yeneen ak yu nga xamante ne directive UEMOA contre la corruption et cetera xam nga loolu yëpp lu muy tekki mooy lenn gis nga volonté politique. Mhm. des fois mooy manqué ci Sénégal. gis nga sous région bi. Mhm. bu ñuy wax rek euh, puisque on est membre du réseau africain des défenseurs des droits de l'homme mais suñu naataangoo yi dañuy tooñee si lenn ne ñu gis nga bu nekkee bind rek. Mhm. sénégalais moo dàq bind fi <laughs> dañuy ñëw jugee ñoom seen dëkk ñëw fii nii pour ñëw xool suñu texte yoo xam ne dañ koy bind ba pare dugal ko si tiroir. Mhm. ñoom dañ koy ñëw appliquer ko seen dëkk ñoom ñu ñëw avancer mais Sénégal lépp mooñ fi bind nañ lépp. lu des rek mooy appliquer mais dañuy ñaan yàlla Euh, le prochain président bu nga xamante ne sénégalais ñoom lañ ñoom ñoo koy tànn mu doon euh, benn gouvernement boo xamante ni ah dinañ am volonté politique boobu noonu pour changer xam nga ñun yàgg nañu bind lii nii di euh, longue détention ak détention préventive hmm. mu am si yoo xamante ni dafa maanaam c'est contrat légume hmm. maanaam àndul loi bi hmm. tey jii nii retour de parquet bu ñuy ñëw di ko def di ko di ko wax tout le temps journaliste sax di ko wax mais xam nañ ni retour de parquet boobu noonu c'est pas normal te pourtant ñu ngi koy jëfee. Hmm. justice nga xam ne moo war a garantir lu nga xamante ne moom mooy équité moom mooy indépendance et cetera moom mooy def loo xamante ne dafay enfreindre loi moom d'abord. yeneen itam ñooñu si wax ñooñu wax bracelet bi et cetera. Mhm. donc am na ay réformes yu nga xamante ne mooy si ba bànqaas bu nga xamante ne moo ñuy boole lii di magistrat yi greffier et cetera ñoom yàggoon nañu def ay recommandations. Mhm. allant dans ce sens. mais tey am na ñu nga xamante ne da nga la tëj bu nekkee yow utoo ay yenn solution yu nga xamante ne bu ñuy génn mais seen réinsertion mais dafay mel ne rek dañuy génn seen kër dugaat encore seen kër. da ngay ñëw pouse nit ki euh, rebeller ko ba nga xamante ne bu delluwaatee il va bu génnee rek il va lay les mêmes dégâts delluwaat. Mm-hmm. dañu lay wax sax dañuy dem pour noppaliku. d'accord bu yàgg ba buñ la tëjee mais problème lay doon. Mm-hmm. mais tey da ngay génn sax da nga koy koy namoo da nga koy muboo. Mm-hmm. pourquoi parce que war nañu xoolaat loolu. war nañu xoolaat le nombre. yu nga xamante ne ñoom la ñuy recruter. Euh, yokk les magistrats tey da ngay dem am benn kii chaque fois ñu leen renvoyer rek. Hmm. yooyu noonu yëpp war nañ ko xoolaat maanaam réforme bi daal. Hmm. pour wax dëgg. Hmm. bu ñu buggoon réformer dëgg dëgg dëgg nañu réforme. mais volonté politique moom moo am amul. d'accord chaque fois nag le politiciens tamit dañ ñu tàmmal loolu. élection bu jotee dinañ la defaral ay promesse ba nga daw. ba nga foog ni sax àjjana sax la ñuy nar a kii. bu leen falee nag ñu def lu leen neex. d'accord d'accord ñun muy ñun ak yeneen kuréel on sera là chaque fois pour les rappeler euh, à l'ordre jouer suñu rôle de veille et d'alerte. c'est important Adama Mbengue oui oui mm-hmm. ma xam naa ni temps moo tënk trop. oui mais euh, am na ay points yoo xamante ni yu gën a am solo tamit. Mm-hmm. wax ñu ne bii amul solo. Mm-hmm. parce que euh, indépendance trois pouvoirs yi dafa am solo. ñoo limiter le pouvoir du président. yeneen pouvoir yi tamit am seen indépendance totale ñu mun ko exercer mais am na leneen loo xamante ne ci askan bi la ñu am benn population bu jeune boo xamante ne moins de dix huit ans la treize millions cinq cent ce des jeunes ils ont moins de trente cinq ans mais boo demee ci instance de décision doo fa gis ay ndaw ñu fay ñu niñ fay représenter ñu am moins de trente cinq ans dafa néew trop. matul sax cinq pour cent loolu du dëgg du yoon beneen bi mooy y a beaucoup de jeunes qui yu nga xamante ni amuñu espoir fu ñuy liggéeyee dañu leen exploité fu ñuy liggéeyee jox ñu leen seen ak ak yéleef et te boo demee si yenn kuréel yu nga xamante ni moo tax ma ne administration bi yëpp dañ ko war a réformer dañ ko war a xoolaat ñu nga xamante ne ñoo war a ñëw war leen ñëw seetul seen ak ak yéleef dañuy ñëw toog banque seen baaraam du ñu def dara donc yooyu noonu yëpp war nañ ko xoolaat. xool inspection du travail xool yeneen ak yeneen yoo xamante ne moom mooy tax la Sénégal mën a def benn bond en avant. susciter surtout l' espoir de cette jeunesse là parce que jeunes yi bu ñu amul espoir. ils vont tout le temps migrer dañuy jéem a quitter. te rek ñooñu gis ni que amoon na benn euh, gaal boo xam ne day mën a dem ñu ñëw euh, jàpp leen. donc muy ay question yoo xamante ni yu importante di leen euh, jaajëfal. jërëjëf Adama Mbengue yow itam ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci na nga nangoo tontu sunuy laaj fàtte ni yow yaay président action pour les droits humains et l'amitié droits humains et l'amitié droits